رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون mbokk yi jàkkaarloo ci seen chaîne Safina TV ñu ngi leen di boole nuyoo bi ñu yàlla boole te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di jiital ci nuyoo boobu borom kër gi muy Thierno Yara Bane ak suñu directrice soxna Ñuma Ba Euh, mu làmb kon mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ñuy seetaan ak fu ñuy seetaanee seen émission euh, la religion et société wala ad diin wal mujtama dellu siwaat na comme ni mu ko baaxoo di def talaata bu nekk ci waxtu yi di ndokkeel ñëpp di sargal ñëpp ci topp gi ngeen ñuy topp ak safoo gi ngeen safoo émission bi ñu ci bëgg bu baax di ci kontaan euh, alhamdulillah tay nak ñi ngi and ak ba légui Samba euh, Seydi Samba si ci technique bi euh, tay nak dafa émission bi dafa xawa spécial touti ndax ku ne wéru koor wax wéru alquran ndax suñ borom tabaraka taala mi ngi wax ci téréem bu tedd bi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان weeru koor bi nga xam ne ci lañ wàcce alquran kon nag waxtaane ci alquran nekk na lu jaadu ba tax na kon émission bi incha allah tey dañuy waxtaane ci ngëneelu alquran ngëneel bi nga xam ne alquran am na ko ci ñi koy jàng ak ñi koy jàngale ak respect bi nga xam ne jullit bu nekk war na ko am ci boobu la téere ak yitte bu mu ci war a def bu ñëwee ba ci jeexantalu émission bi incha allah danañ waxtaane tuuti actualité alquran te ku ne actualité alquran mooy actualité daara moo tax tey ñu am fi invité nag euh, bu màgg muy oustaz Taha Niang bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy woowee soldaaru daara xam naa dañ koy jox rek mu nuyoo présenté wu après ñu dugg ci waxtaan bi oustaz Taha bismillah bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi arrahmani arrahim bismillahi lima nafal walhamdulillahi mima faala lana alhamdulillahi alladi la abri bihi badala hamdan yuballigu min ridwanihi alamala ثم صلاته والسلام على أبي البشر سيدنا محمد سيد الراكعين الساجدين سيد الآمرين بالمعروف والناهي عن المنكر هو شفيع الأمة ومنذر الخلائق ومبشرا للمؤمنين وهدى ورحمة للمتقين وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والتمكين بقي سفينة اف ام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة حبيبكم طه خادم القرآن في مدرسة سيدنا عثمان بن عفان آتانا الله من فضله نيجي نيو نيجا خمنا موي واصفينا بوكي أوديتيري أك تريسبكتاتيري دي نيو أستاذ منير نيجي نيو بعد الأجارة دي أم كونتانتو ما تشي دلال بي نيو دلال تشي بلاتو بي ñuy waxtaanee ci weeru màgg di waxtaanee lu màgg lu ñor yàlla muy alquran di nuyu directeur ak directrice bi nga xam ne ñoo nekk ci télé bi ak boroom télé bi di leen ñaanal yàlla télé bi yàlla dem ba kawe télé yi fi nekk yépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu waa daara ji nga xam ne ñoo bokk liggéey bi di liggéey ci alquran di leen masawu timit coono yi di leen wax teraanga ji yàlla defal alquran wàcce ko ci weeru koor yàlla bu mu leen umb bisimilah. macha allah nuyoo bi am na solo Oustaz Taha ñu ngi la koy fay euh, di fas yéene rek dugg directement ci waxtaan bi te mooy ngëneelu alquran euh, bu ma la waxoon euh, ban ngëneel la yàlla dencal ñi nga xam ne ñooy jàng alquran mooy ahlul quran lan la yàlla wax ci ñoom. ah ma laaj ma neex. d'abord ba ñoo wax ngëneel bi yàlla denceel waa ahlul quran dañuy wax lan mooy alquran mhm. alquran dafa doon message boo xam ne yàlla moo ko wàccee mu doon waxam sa maxluuq nekkul lu ñu bind dafa doon waxi yàlla joo xam ne dafa ñëwoon pour régler problème àdduna bi doon ay message yoo xam ne constitution la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi fu mu mosaan toog rek bu problème amee yàlla bëgg ko régler daf koy envoyé message na ko jox ko gaañi. est-ce que. mu partagé ko mu partagé ko. Mhm. envoyé message mu partagé ko yi vie ko ah. Mhm. ce que. Mhm. da ko wàccee étape par étape moo tax alquran après ci lañ ko dajale moom alquran mu doon juróomi lettre juróomi lettre yu ama am solo nag alquran nga wax. alif gi xam nga lu mu lay jox allahu lan moo ci topp laam gi allatifu qaaf gi moo ci topp qurbatun lil mawla gis nga kiy jàngale alquran ak ki kay jàng dangay doon xaritu yàlla yàlla def lay xoolee bëtu yërmande ba pare qurbatun mawla moo gën a yomb ci alquran yaa man yuridu alqurba min mawlaahu fal yaqra'u alquran laa yansaahu ku bëgg a jege yàlla fexeel bay jàng alquran bu ko bàyyi mu teg ci alif muy albarakatu gis nga kiy jàng alquran di ko jàngale boo amee juróom fukki at rek barka wuyu munoo ci dara. Hmm. boo amee juróom fukki at xam nga lu nit ñuy soxla ci yow tàllal seen loxo nga ciy tofli <laughs> say taflit lañ soxla. say taflit lañ soxla. Mm-hmm. soxlaatuñ leneen foo dégg ñu naan sëñ bi ñaanal ma ñaanal ma rek ngay dégg bu ci togg mooy raa gi rahmatun lil muminin ñi gëm alquran di ko jàng di ko jàngale yërmande la ñeel ñoom ci àdduna yërmande la ñeel ñoom ci al alaxira yàlla daf leen warlul dinaa leen defal teraanga ci àdduna yoomal xiyaama defal leen teraanga mooy dugal leen aljanna mu teg ci nuun gi nuurul xalb nuurun من النور قد أودعته حكما تفيض فيضا على الأخلاقية الله كي جانج القرآن yàlla daf lay defal nuuru samawaati wal ard gis nga jàngalekati alquran yi boo leen gisee rek fan leen mënoo ci dara donc boo leen di gis di leen fan parce que dafa am talaala wajuhu gi feeñ ci ñoom booy gis seen kanam yi da ngay gis ay image yoo xam ne ñoom ñi jàngalewul duñ ko am moo tax président sax day ñëw toog seen kanam wala ministre ñëw toog seen kanam pour ñu ñaanal leen loolu barke la bu yàlla defal alquran boo demee ci alquran dafa am ay xaruf baatu alquran ci téere bi mi ngi wàcc cinquante fois baatu alquran bu doon émission bi yaatu na dama lay indil aaya bu nekk par aaya waaye émission bi yaatuwut kon dama lay indil première aaya bi nga ubbee muy ngëneel alquran شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريدا او على سفر فعده من ايام اخر صدق الله العظيم بني غد نغنيل بي يالا ديفال القران تي وير كور لا كو ديفال اسكي تي لو ميساج بي بيم كاي انفواي كور لا كو غيني بيم كاي انفواي يونتي بي خمغا غار حراء xaaru xiira te bi mu ko koy envoyé bu ko neexoon mu indi ko kaw asamaan comme bi mu koy jox julli mais ci ay ay néegu ñeex la ko fekk laa la mën a wax wala ci ay ruq moo tax borom daaree ci ruq yi rek lañ faj te jibril bi muy indi alquran di indi nubuwa gi bi koy jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar la indi dafa indi benn basan indi photo yi bi nga toog na ko yàlla na nga tànn nubuwa goo xam ne nuba laa lay ànd ak ak nubuwa goo xam ne foqaraa lay ànd ak yonent bi tànn ak foqaraa yi naa jël nubu goo xam ne kuy jàngale alxuraan milliardaire gay doon mais mu jël nubu goo xam ne day ànd ak ñi ñàkk parce que ñi ñàkk moom ñoo gën a yomba a ànd ak bu ko defee juróom fukki aay yooyu bi si njëkk jàngal naa la ko mooy weeru koor ci la alxuraan wàcc unzila fiihi alxuraan yàlla nag bi mu wàccee alquran hudan mhm. damay dégg sëñ Muntaqa nee na alquran ji li muy rëy rëy rëy man daal hudan gi rek moom ci ñor sa hudan mu niir mooy lan jub est amul laaya laaya mhm. kocc mhm. <laughs> kocc yàlla bi mu ñu wàccee dañoo defal wa hadaynaahu najdayn ñaari yoon benn yoon bi pour directement ci moom la mu ngi mel ni ni may toog ak caméra bi directement ci yàlla amul léegi nag yaay dévier sa bopp wa maa rabbuka bi zallaamil lil abid léegi bopp mais moom pare na pour nga ñëw mu defal la teraanga wala qad karam naa bani aadama teraanga laa leen defal ci àdduna jox leen àdduna ak recherche yi nekk ci biir yëpp teraanga laa leen xaaree àllaaxira bi mu leen di bindi da ngeen ñëw set wecc fexe leen bu ngeen ñëw set wecc ma defal leen teraanga ji yóbbu leen aljanna yi ñëpp préparé ma kenn pour feneen bokk na ci ngëneel bi yàlla defal alquran Euh, moom alquran ci weeru koor gi bi ko yàlla wàccee ba noppi jibril danaan ñëw seet si yonent bi sallallahu alayhi weeru koor bu ñëwaat daan nañ naafila kaabil bi ñetti yoon benn bi dañ koy naafila ci taxaw euh, jàng alquran ci naafila benn bi ñu ànd ko mu jàng ko mu dégg benn bi ñu naafila ko guddi. est-ce que. Mm-hmm. booy nag ci budul weeru koor ak bu weeru koor bokkul boo demee ci. boroom xasida ba dana booy jàng alquran boole ko njàpp xaraf bu ne dañ lay fay ñaar fukki yiw ak juróom. Hmm. bu dee loxo bi day am 25. bët bi day am 25. làmmiñ am 25 multiplier ma 3 fois 25. Euh, nga xool bu dee nag da nga def alif laam miim yonent bi sallallahu alayhi ne alif am nga 10 points. laam 10 points miim 10 points bokkut ak boo nekkee ci weeru de xam weeru koor moom weer la boo xam ne yàlla daf weeru koor daf ko ñor weer yëpp dana ashhuru maalumaat waaye nag weeru koor dëkk see ceppi ne shahru ramadan pourquoi mu sepp ko rek tegee ko nee daf ko ñor parce que ci la wàccee message bi muy envoyé jullit yëpp muy constitution l'islam muy alquran ba pare ci lay régler problème julit ñep weeru koor bu ñëwé ci ngëneelu alcorane ci ngëneelu weeru koor day wax malaaka yi jël leen congé ah prisonnier shaytané buntu safara yi mu fermé leen buntu aljaan mu ubbi leen pour ñan julit ñi kon ngëneelu alcorane boko xolé munir ci weeru koor euh na yaatuna pour julit bi nga xam day dafa bëgg alcorane di jang Euh, boo koy jàng tamit yaa xam mokkal nga ko yaa xam mokkaloo ko yaa xam ab xisib nga ci am yaa xam loo ci am la man rek jàngee ko na ko mane boo demee ci alquran yàlla dane warattilil qur'aana tartiila tartiila mhm. jàng leen alquran comme ni ma ko wàccee waaye jàng leen li leen yomb ci alquran nekkut ki mokkal de te alquran li ci yéeme mooy nekkut tawiilun muxil nekkut tawilin mu xil lu gudd loo xam ne da koy jàng ba yokkat amu ci gis nga xam kañ ngay xam alquran neex na mu niir boo demee ba doon mag say sët yëpp bala fekk nga mën a alquran alquran moo lay wettali waaye bu fekkee mënoo alquran nag mën naa am nga wettali koo ci pami PMI wala nga wettali ko ci yeneen ak yeneen ak yeneen waaye boo ba mënee alquran sa jardin ngay toog rek taalal sa sajaada jàng rek. كون 50 آية يوي ما لوح بريمير آية بمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مم القرآن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يالن يعني دمكو واتشي ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu envoyé ko julli ñi pour lan mu génne ni ñepp ci lëndëm jëmeleen ci leer bi izni rabbihi بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد يون ويغا خنا بو ييغي رك يالنا لا ميرسي بو جامو يالا سي القران نون لا لا يالا دي دفال موم القران تيري لا بو خامني آي بي موجي سي سورة الانشقاق جيروم فك آي جوختيل نالا نياار آي بن بي بي سي موجي سورة الانشقاق تي لاي واخ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ما سنكان تيمبي سنكان تيمبي ما يسجدون بسم الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني أنا يو يو تبي صلى الله عليه وسلم بيبين يودي لجوخ القرآن قام بور لالا بور سيفي جامعي xam wax naa la sànq ne le raa gi rahmatan lil muminin waaye rahmatan lil alamin buñ intelligent woon xam ko waaw doomu jullit bu mënul alquran waaye jur wa perte na te ñëpp war a delluwaat ci alquran jàngi ko liñ leen wax ci di leen indil beneen éducation boo xam ne euh, nu ma ko tuddee colonialiste la wala dañu si coloniser mu Munir xam na ci dara jàng na ci ba génn ci waaye xam na ne dañu ci coloniser yenn saa ñu naan daara ji dafa métti lan moo gën a métti nga am juróom-ñaari at ñu jox la benn waay boo xam ne lam lay jàngal yow nampo ci dara nga am 33 20 ans ñu yóbbu la université nekk fa di la ba nga am 30 ans wala 5 40 ans ñoom ñoo yor sa loxo boo paree nag ñu lay door a wax na ab tubaab nga def nga licence wala def nga thèse te loolu yoonu yàlla nekku ci yàlla du laaj ëllëg yoomal xiyaam ana li ngeen doon jàng ci français bi lu lay wax maa kitaabuka ana ban téere nga yoroon di ko siiwur ci àdduna eh bu fekkoon yaa ngi yor téere alquran di ko siiwur nga ne ko kitaab yi alquran waaye nag bu dee téere Napoléon nga yoroon nag Karl Marx ak Sotorak ak ñi ci aju dangay taxaw ci kanam yàlla doo xam loo koy tontu te Serigne Touba. رضي الله تعالى عنه داي واخنا لا تشتري الدنيا باخرى يا فتى من باع النور بالدجا فسينتم لما تي نانا بول جاي سا ادنا جندي لندم موي فخال ياو بوبول ماناج لير 20 journal yo xamne ñi ngi senegal te téré alquran bi alif xamé wu ko ci amna ño xamne buñ xé journal yépp lañu jindi lire yépp xolal temps bobu mu nir te pourtant boo leen tegalee téere alquran baa siin miim rek munuñ ko ci teg ku waxul sa doom baa bu ko baloo dara ku waxul sa doom siin bu ko séenoo dara ku waxul sa doom miim bu ko miimal dara alquran dafa ñëw pour régler problème àdduna bi gis nga même àdduna bi bu ñëwoon sukkandiku ci alquran pour régler àdduna tabax na àdduna bépp xam-xam booy gis ñuy doxal ci àdduna ba ci xam-xam yi ñuy nekk mi ngi ci kon Munir ngëneel alquran yaatu na li ma ci bëgg wax rek mooy yàlla bi muy tagg ñi nga xam ne dañoo nekk ci alquran di ko jàng dane am na ñoo yàlla dafa am ay soldaar ci kaw suuf am ko ci kaw asamaan soldaar asamaan yi xam nañ leen mooy malaayika yi junudu samawaati wal ard soldaaru kaw suuf nag mooy waa alquran ahlul quran ahlullahi wa xaasata yàlla neen bu parti politique amoon ngay ni voté may sànni sama carte bu mu ñëwee waa daara laa koy sànni allahu akbar fa tabarakallahu ustaz Taha ni nga ubbee am na solo euh, maanaam dafa mel ni sax campé nga euh, yeneen question yi nga xam ne bëggoon nañ ko dugal yépp ci tontu bi nga xam ne ànd nak ak xikma ak mawizatul xasana fa tabaarakallaahu xam naa képp kuy seetaan dana ci jëlee njëriñ hmm. euh, ci loolu rek ñu jàll ci deuxième point émission bi te mooy wax nga ko ci sa biir wax gëneel bi nga xam ne yàlla jagleel na ko ñuy jàng alxuraan ak ñi koy jàngale hmm. ak alquran ci boppam importance bi mu am euh, nga xam ne wax nga ko ci sa biir wax boo ko déggee rek hmm. danga nga posé bu question sax jullit yi naka la ñuy amee lu mel nii di ko fi bàyyi di wuti leneen comme ni ko comme comme ni ko Seydina Omar waxee woon rek mu ne ñun ay nit lañ ñoo xam ne yàlla daf ñoo teral ci lislaam bu fekkee ñu ngi jéem a wuti teraanga feneen fu dul lislaam rek toroxtaane la ñuy jural mooy li nga wax buñ ko résumé léegi nag alquran ak ñoñam xéewal yi leen yàlla jox ak nim leen terale lan moo tax nit mana jakarlo jàkkaarloog di leen ñeme ndax xam nañ combat bi ci li ngeen yëngu moy ci nga xam ne euh, ay défenseur daara ngeen euh, légui naka la nit di mana a ku yor euh, lu toll ni bay jakarlo ak di diko diko ko xare dafa munir yàlla bi wax khairukum yunus sallallahu alaihi wa bi wax khairukum man taallama alqurana wa allamahu xayriye gi nekkul ci jàng bi kese de mais nag ñun Sénégal dañu am problème ci alquran alquran dafa am deux ab abcès ibadiyaat ak muamalaat ñun nag dañu jël alquran rek ci ibadiyaat bi jaamu yàlla kese te xamuñ ne alquran réglé na problème mu àdduna ak problème mu àllaaxira gis nga coow yi si monde enc bi yëpp ñu nekk fi di laayam laayam rek ci ay coronavirus ak yi ci aju yëpp bu ñu dellusoon ci alxuraan mu la problème bi mais nag malheureusement dañu bëgg seppi loxol yàlla raxas ko ba mu set tegee ne di wax ay xalaatu doomu adama te pourtant buñ dugaloon ci penc mi alxuraan euh, jël alxuraan ci muamalaatam ci wàllu njaay ci wàllu jënd ci wàllu économie ci wàllu. société ni mu koy tabaxee ci wàllu médecine ci wàllu lépp moom alquran bàyyiwu ci dara mais nag dafa am ay lu ma mën a wax suñu mbokku nit comme ñun ay insaniyat xam nga dafa am mission l'être humain sur terre ñoom ko dañ ko comprendre maanaam doomu aadama bu nekk mission bi mu am ci kaw suuf ñoom pour ñu tabax seen àdduna dañ ko comprendre ñu jël biir alquran la ci nekk ñu seppi ko jël ko lañ ci jullit ñi waroon a jëfandikoo ci wàllu muamalaat ñoom ñu récupéré ko léegi nag bàyyi jullit ñi ñu nekk ci allahu akbar asalaamaaleykum xam nga la salaam seen waxoon ne euh, arab yëpp dëppoo nañ ne duñ mës a ànd moo sonal jullit ñi mais buñ jëloon alquran ji def ko muy seen constitution di ci attew def ko mu xool li njariñ ñi nekk ci biir ñu sukkandiku ci jaaree ko ci jaamu yàlla jaaree ko ci liggéey mën nañoo tama àdduna lan moo tax nag bukki dañ ne bu bu waxan mbaane bu dabee du bukki bu dabee wax mbaane sa doxin bala mooy iftiraq bi am ci aalamul islamiya dumu wax sax ci Sénégal mais ci aalamul islamiya tey arabe saudi moo doon jiite mu adduna bi yore leen ci wàllu religion te julli ñëpp seen vision symbole islam arabe saudi la nag bu wootee euh, conseil national wala international audience ñëpp jël seen billet dem participer fa seen alal mais moo waroon rogganti jullit ñi boot leen mais malheureusement gars yi dañ ko tasaare léegi nag tasaare boobu ñu tasaare suñu symbole islamique ci la ñu ñemee waa diine ji ba afkaar yi nga xam ne gis nañ ko ñu koy génne ci idéologie yi nga xam ne ñu ngi koy teg ci kanam àdduna bi euh, afkaar yi bu jullit ñi taxawaatut nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana jullit ñi fattaqullaha waaye wa nazimu umurakum ci organisation ci laa leen delloo ragal leen yàlla mais nag organiser wu leen mais mal malheureusement organisation monde arabe ab monde arabe amul ba organisation bi nga xam ne moo ñu waroon ñun fii ci Sénégal amut. très bien fuy ci Sénégal foofu sax laa lay laa lay euh, muy wàllu daara ci Sénégal ndax boo xoolee monde arabe wala yenn ci pays lislaam yi ñoom sax góor góorgóorlu nañ ba xaw a organiser daara tuuti nga xam ne sax reconnaître am nañ benn reconnaissance ci ñoom mais buñ xoolee Sénégal euh, ak daara yelwaan yi دار انترناي برسك دال دار مونيني تي سنغال موير بوبام لول نك فوت بوب دنج كاي ديلو تي نيغا خامن نيو يور داراي نيو جولي تو سنغال ولا دنج كاي ديلو تي ني تي كاو موي نيغا خامن نيو ني يليف دا فاب المسؤول الحقيقي اك مسؤول شبه الطبيعي مسؤول الحقيقي هو الحكومه ومسؤول شبه الطبيعي هو هو هو, هو الاشياء masul alxaqiqi mooy euh, euh, ñi nga xam ne ñoo yor vérité bi dëgg dëgg dëgg dëgg mooy état. Mm-hmm. te état budget Sénégal buñ koy voté quarante pour cent la téeméer yoo jël dañuy jox quarante pour cent ci njàngum Sénégal quarante pour yooyu daara moom voté luñ ko ci dara te daara bi mu déparé départ bu njëkk bëgg dem rek la am ay. occidentaux yi ñoo taxaw seen kanam bu njëkkoon ci jamonoy Faidherbe dañ ne woon xale bu daara yi buy école yi jàng di français amatuñ droit jàng dégg ma de jamonoy Faidherbe ku yóbbul sa doom école français bu daara yi jàng amatuñ droit jàng day xaar ba xale yi wàcc sa doom sa doom. bu njëkkoon boo demee Pire daaray xaadim Amar Fala euh, Fall. xaari Amar Fall mm-hmm. Mm-hmm. moom feder boobu ma wax moo taal daaram mag ñi doon rawale seen diine fu ne ñu daw pour jàngale kilifa yi toog fii ba sos lii ci seen maam ci lañu bokk léegi nag ñooña ñooñ xamoon nañ leen parce que dañoo bokk ci ñi yàlla wax ne summun bukmun umyun fahum laa yaqilun yàlla xatama allahu qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim rishawa ñoom yàlla kast na seen xol leer du ci dugg leeru alquran ji mënu ci dugg léegi nag ñoom seen idéologie lañ doon installé ci senegal maanaam départ ba ci lañ amee problème ba léegi léegi nag ñu may ñu indépendance 60 ba léegi boobu ba léegi lijjantiwuñ suñ bopp ñun Sénégal boobu ba léegi lijjantiwuñ suñ bopp ñañu may indépendance wan ñu ginnaaw dañoo topp di déglu seeni xalaat ba léegi léegi nag te ñooña amuñ reconnaissance ci alquran te am nañ ay doom yuñ fi yar baleen fi jàngal leen seen nàkk gi ba ñuy takk cravate jàngal seen làkk gi ba ñuy sol seen yooyu costume mooy tubaab yi ñuul yi tubaab yi ñuul yi doom mm-hmm. bi ay surtout Faidherbe ne ñoom ay tubaab lañ te boo toogee ya làmb làmb làmb ba jot rek seen maam fàllee sant wala jóob wala wala njaay wala nan joxaane wala joxum ba kon ñoom nañ dellusi si dafa am ñu départ nag Sénégal gi am na ñu départ dem nañ te dañ leen war a xëccaat ne dellu si la ñu tax tabax suñu Sénégal gis nga bi ñuy teg république di waxtaanee daara dafa bokkoon ci ñi toogoon doon waxtaan Seydi xaj Malick ci la bokk mag ñu baax ñu ci la ñu bokk ñu defal leen ñu may autorisation ñoom ñu yor seen daara di jàngale. léegi nag mayuñu ñu sax autorisation reconnaissance la ñu mayoon léegi nag dañu bëgg a xañ suñu reconnaissance. Mm-hmm. te reconnaissance bii ñu xañ ñu population Sénégal bi xañuñu ko population Sénégal ñoom mën nañu gérer daara. Mm-hmm. d'une manière générale ñoom ñëpp koo ci gis bu xëyee am na yéene jox xaale xale lu am jëmmi yalwaan bi nga xam ne nag moom la ñu wax ci réew mi ñu ne dafa euh, euh, dafa ñaaw dafa nangam gis nga. suñuy suñuy aaday maam kenn ku ne am na ay aada làmb ji amul ay aada yu ci nekk bu nga génnee am na yu yoo xam ne bu ko xoolee dina rafet ci yow waaw léegi nag daara jii lii ñuy wax ñu naan dafa ñaaw déedéet dara ñaaw ci te du Sénégal bu doon bu doon sénégalais la sax mais suñu état la kon moo tax man la état moo war a jël ay responsabilités buy wote bis bi bu defee quarante defal daara quarante daara toog ci biir Covid bi. xam nga ñaata milliards lañ génne ñaata 15 milliards. 3 millions pour xeex daara ji Abdoulaye Wade moom ngàcci ngaalaama moom génnoon na 15 milliards pour tabax daara waaye kon la Abdoulaye Wade defoon dañ ko bëgg a toj 15 milliards pour tabax daara ñu jël 4 milliards sax 14 milliards 4 milliards ñu yóbbu ko suñ te ñu ñoo ko lijjanti woon ci banque mondiale islamique ñu ñu àbbuñu 4 milliards ba léegi delloowuñ ñu ko yóbbu ko plan tàkkal ñu toog di xaar ci biir Covid bi ñu indiwaat quinze milliards suñ dix milliards yi joxe ju ñu ko pour xeexee ñu ko loolu daara euh, Sénégal boo yeewoon El Hadj Malick na ko Sénégal ña ngi fay xeex daara du ko gëm boo demoon yee sëñ na ko Sénégal ña ngay bundu xatal du ko gëm boo demoon yeeyi maam Ibrahima Niass na ko Sénégal ña ngi fay xeex daara du ko gëm. léegi nag xeex bi ñuy xeex daara ji xeex suñ bopp la dañ ko gëm parce que président Macky Sall sénégalais la. Mm-hmm. préfet yi ay sénégalais lañ bu dee nag dañoo am ay convention yoo xam ne ay occidentaux ñoo leen ko jox nañu xool signature yi mm-hmm. ñuy signé waxoon na ko na ngeen xool li ngeen di voté xool leen budget yi xool leen signature yi ngeen di di ngeen ko signé di ngeen taxaw ci amaamallahi ëllëg. a bàyyi xel. mën na bàyyi xel trop kon mu mel ni boo xoolee suñ mag ñi ñoom li ñu waroon def def nañ ko ndax daara bu egsee fii bañ mën a di ci wax tey ñoom seen liggéey la lépp Cheikh Omar Foutiyou Tall nga xam al mujahidul kabir nga xam képp koo xam am nga am nga sañ-sañu taxaw di julli am sécurité tay war nga ko ko sante war nga ko koo gërëmee nga wàcc ba ci Cheikhul Hadj cheikh ma Abdoulaye Niass maanaam mboolem këru diine bu nekk ci Sénégal rek ku nekk lañ ci waroon def def nga ko léegi nag ñi nga xam ne ñoo yor puso bi tey xam nga olof def naan mujjee puso bi mu réer moom baaxul gis nañu yeneen ciy def ay xeex yu am solo mais est-ce que euh, seen xeex toujours damay déglu ngeen ci di dugal état état état est-ce que da ngeen war a toog di xaar lépp ci état wala mën ngeen def loo xam ne lu ñu mën a teg bët la nga xam ne sax yéen état da len au lieu que mu leen xex mais da len mujj sax ragal manam def lo xam lu palpable la nga xam ne état bu ñëwee fekk ci len alhamdullah bu len fekk wul tamit yeen mën ngeen seen bok ba pare à travers seen organisation yi ngeen yor. defal sa devoir do la sa droit suñu devoir moy ñun ay daara di jangalé daara yi bu melu ni ñu wax ko nak dafa am lu menace daara ay texte la. texte yooyu ñun suñu état dañ ko voté xawma may moo menacé daara mooy nouvel ordre mondial buñ ko bëggoon a doxal daara nekk fu mënul sotti parce que nouvelle ordre mondial mooy beneen vision bu àdduna bi di doxee nga xam ne diine amu ci dara diine wala diine amu ci place yàlla amu ci place moo tax mënatu ñoo may sax tolérance bi ñu amoon te dama yàpp na suñu président xanaa bokkul ci ñu sañ a bokk waaye gis naa ay attaques yu bari nag yu jëm ci si ñun di jaar ci moom beneen bi mooy éducation international xam nga bu defee éducation internationale daara nekk fii di jàng alxuraan di kii éducation internationale mënul am te boo demee bërki dem rek yon naa Mauritanie ay daara yoo xam ne gars yi dañu doon sànni ay xeer kon problème euh, menace la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon mu jég jamono diine day tumuranke diine day tumuranke waaye nag fa tuuba lil xuraba texe ñenn ñi nga xam ne ñeme nañ tumuranke gi ñun nag daara ji ñu ngi organiser wu waaye war nañu yokk comme teglu lu palpable teg lu kat mi ngi am daara bu njëkkoon ci ay néegu ñax nga ko xamee ci ay barak léegi nag foo dem internat yi na xas te internat yi moyen la pour doomu patron yi jàngal. fa tabarakallah alxuraan de parce que am na ñoo xam ne mënuñu woon a gere daara bi fi nekk nii léegi nag kër goo dem ci Sénégal jël nañ seen doom yóbbu ci daara parce que da ngay dem ba gis daara joo xam ne dañ naan man de kii de réunir na samay conscience doy na ma li ma bëgg ci sama doom mën naa ko faa yóbbu ci doomu patron yi doomu ministre yi ñëpp ngi jàng alxuraan doomu police yi doomu ba xataa léegi nag bu ñu bëggee xool ne daara dafa am ay catégorie ñu bëgg ko yi wala ñu nooy daara internat daara moderne daara externat benn daara ma mooy téere yàlla bi ku koy jàng yaa ngi ci daara ji léegi nag problème bu amee dañuy xool bi nga xam ne moo gën a ëpp problème bu ñuy régler ñu la ko xam li ñu waral suñ poroblème yi mu niir coow li bëri na kur ba léegi gars yi tegaguñ lu dëgg ci taabal ji mooy bu ñu waxtaanee yalwaan bëgg woo Munir mi nga xam ne daara internat la yor taaxaa mi yor daara yelwaan toogee ne le ngay waxtaan ak Munir du nga boo gisee boole ONG ak arabiphone ak ay sociologue ñooñu léegi nag man mi nga xam ne maay dund mbir mi nga teg nga tegee ma ne boo attee ba pare boo ñëwee dama naan li nga atte baaxut loolu mooy coow li. lii kese dañoo war a yaatal waxtaan bi. waxtaan bi dañoo waxtaan ak indi seen xalaat liñ dëppoo ñu ànd ci liñ dëppoo ñu maslaa ci ba keroog loolu mooy doxal am réew cooli cooli cooli ci waxtaan lay mujjee. dafa am ñaari nekk yu ma leen di fàttali loo xam ne moom état bi laa koy jox ak sénégalais yi ak population bi daara mosul a génn sànni xeer mais bañ demee ci Jurbel ay sëñ daara génn nañu sànni xeer loolu état na ci tenir compte daara mosuñoo toog ñu ne dóor nañ fi sëñ daara ba toj bët ba man mi lañ tojoon sama bët. ah yow yaa man yaa Oustaz Taha mm. man mii lañ toj sama bët te loolu état war na ci tenir compte parce que bu nit ki bàyyee juddam jël wiraasaam donoom gëm ko géwél bi def loolu toroodo bi def loolu keneen ku nekk def loolu sëñ daara bi ñu jox ko daaraam mu doon nekk ci ay maamam mu gëm na moom li sama patrimoine la nga bëgg ñëw na ko li nga yor du dara te maamam yoron ko depuis 1900 bam judd ba depuis 60 ba légui kon boo ko bëggee xañ àqam te tegaloo ko fi dara warna am mën am lu mu def ak yow. très bien lool amna solo trop euh, fi nga genn nonu mais liñ bëgg développer bëri na mais temps bi mo ñuy mo ñuy xaw a xoj euh Oustaz Taha amna ay plan d'action yu ngeen tek pour sëriñ daara yi nga xam ñom lañ japp Euh, dugal leen ci kaso yi dama lay njëkk laaj sax seen ak jàpp lan moo ko waral d'abord euh, ci gàttal après nga ñëw ci plan d'action yi ngeen teg pour jàpp jàppale leen. waaw comme comme yi bi rek jafe moom moo dund ñoo ànd euh, boo demee ci fi ñuy tëj sëñ daara yi junni yoo jël da nga koy fekk lu mat juróomi sëñ daara la ci topp waaye ñes des ñëpp ñi ñaarul la njaboot ñi ñaar daal bëriwuñ fa. te njabootu daara dañ leen a yar ah plan d'action yi ñi teg nag tey jii danañ dem eh, dem nañ te ngéej taxawee journée nationale des talibés journée nationale des talibés lu tax ñu taxawee ko taxawal ko mooy ñun euh, bi ñuy doon taalibe fii dakaar fi lañ yelwaane fi lañ màggee fi lañ jàngee luñ jàng daan nañu ci invité ñuy dem maa ngi fàttaliku sëriñ Maxtaar rahimahullah rahimahullah yàlla yàlla doolu ko leer bi ñu yóbboo derkele sorewul fii booba moom xam naa ne ba ñu wooyee ca bis ba am na lu ko métti man mii la joxoon ma doon jàng booba xale ba tuuti laa yaakaar naa sama fukki at ak nangam matut maa ngi fàttaliku ba ñuy boog la tajidanna ashadda annaasi adawata lilladina amanu al-yahud walladina ashraku xam nga aaya bi li muy firi kuy dem ci aw nit ñu woo la nga dem di leen sànni ay xeeru ci al ay ay alquran kon booba yow kilifa nga mais sa xol woo nañ la munoo ñàkk wuy ji nee nañ la yaay jàng alquran mais sa xol neexut kon komba bi jiitu na suñu judd euh, suñ daara yi nga xam ne nag ñi ngi ci biir kaso bi dem nañ ci kaso yi nekk fii visité leen incha allah ba jot seen doléance ñoom ba ñoom bindi nañ ne li ñuy soxla li ñuy soxla li ñuy soxla ñoom li ñu soxla nag bëri na bëriwul waaye waa daara ñu ngi jaayante bañ demee nee nañ xamal li gën neex nga fekk kuñ jàpp ci biir koso nga dem na ko damaa bëgg ñu dimbale téere bii nii lañ bind dañ cee soxla douze muxtaarul ahadis bii nii. est-ce mhm. waaye muxtaaru ahadis lañ ci wax dañ cee soxla douze. Buluuxul Maraam xam nga ko ñu ne vingt lañ ci soxla. Qisasul Anbiya ñu ne vingt lañ ci soxla. ñu toog ñu ne ñu xira daara ja ci boppam fii police bi ñu ne am na juróomi daara ñu fa ubbi far. <laughs> ci biir kaso bi ci biir kaso est-ce que ah. léegi prisonnier di jàng alxuraan moo garaaw. est-ce que kon daal ay missionnaire lañ yu yàlla yebal foofu. ay missionnaire lañ xam wax naa ko nee nit ki lu faaxidu shayin. nit ki lu am am joxe gis nit ki boo ko tëjee mu niir boo yàggee ak moom sax yow mi ko tëj mu defar la. bu dee lu baax rek moo nekk ci moom sëñ Cheikh missionnaire bu mag boobu bi nga tëjee ci kaso bi gis nga ko lam daan dund xasida yi mu way yëpp ci biir kaso bi la ko way nga gis ne moom dafa jàppoon ne mu ci bitti waaw ah, léegi nag ñu ne soxla nañ warsh téere bi cinquante soxla nañ yaasin warsh cinquante soxla nañ kurus soxla nañ sijaada man man a ñii ñoom daal ay daara lañ mujj tijj ci biir léegi ngeen programme pour seete soxla nañ aussi ay ay jàllaabi yu sol pour man ko niroole ci. biir kaso bi mm. jàng a ànd julli. Mm. Mm. soxla nañ microphone pour bu ñuy bayaan ñëpp mën a dégg rajo pour jàkk mu ni lii dafa daw yaram. est-ce que boo demee ñu bu doon ay faaleen wala ay njóobeen ñaan indi ñu saako ceeb ak indi ñu nangam ñu naan la ne indi indi ñu yónent bi indi ñu yàlla ci biir kaso bi le 29 incha allah tabaaraka wa taala nag ci lañ jàpp pour def délégation dem yóbbu leen don yi te ñun nag incha allah bëgg nañ mu ëpp loolu li ñu wax dinañ ko toppatoo jox leen ko mais sénégalais yi nag ñu ngi leen ci woo. bu dee jox leen benn numéro téléphone boo xam ci numéro bi mm. boo jëlee euh, numéro 77 268 02 60 boo ci dugalee sa alal dina ñëw ci euh, ñi nekk ci kaso bi parce que yemale wuñ ko ci sëñ daara yi kese mais ñi nekk ci biir kaso bi yëpp in bëgg nañoo indi ay xéwal yoo xam ne ñun waa daara geste bu am solo la nag xam nga dañoo jàppoon ne yaa ngi wax plan d'action dañoo jàpp ne daara dañuy toog ci bi rek jàng nee naa suñu xalaat ak suñu xam ak suñu objectif yi ñu am ci moment bi ñu toll ëpp na léegi toog ci daara ji kese léegi nag am nañ ay yeneeni initiative yoo xam ne incha allahu tabaraka wa taala li ngay wax plateau télé yeeg yëpp dinañ ci toog di joxe suñuy xalaat ci ni àdduna bi di war a doxee ni ci daara amee wàll niñ ci war a séddee daara cërëm jox ko xàqam bañ ko ko xañ fa tabaarakallaahu jox ko xaqam bañ ko ko xañ kon nañ jox xaq temps bi bañ ko koo xañ tamit ndax li ñu waroon waxtaane bëri na mais li duuf ci nag bi xajul ci cin li waaye kon nañ koy nañ ko dugal ci frigo bi di jël ndànk-ndànk di togg boobaa muy jeex incha allah waxtaan bi am na solo trop bëri na ay points yu ñu bëggoon brosse mais xam nga rek temps bi moo xaw a xat tuuti am na solo trop li liñ ci jot a dégg ñu doyloo ko rek di ñaan mu nekk njëriñ ci mboolem euh, ñi nga xam ne ñooy suñu internet doon ñu seetaan ci Safina TV di wax ne kon ñu jox kàddu gi oustaz Taha rek mu tàggoo kàddu tàggoo gi mooy conscience euh, sénégalais yi ñu gën a bàyyi xel na weeru koor gi weer la wu ñuy defaroo weeru koor la boo xam ne ku ci bëgg bàyyi tux war nga ko mën a bàyyi weer la woo xam ku ci bëgg lu ban war nga ko mën a weer la woo xam ne buy ñëw pour tàggat xol la tàggat ruux defar doomu aadama yàlla bi muy wax xadis ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane woon nit ki bu nelaw kuy kuy woor mi ngi mel ni jaamu yàlla bii ñaan yàlla daf koy nangu bu noppee mi ngi sàbbal yàlla kon nag yàlla na malaaka yi jël leen congé man maa leen di fay yàlla nee na koor man maa koy fayal sama bopp encouragé timit sénégalais yi ci seen euh, taawun bi mooy sociale bi gën leen ci encouragé ci koor gi dañ koy defee mais après koor nañ ko continuer te ñu organiser ko gis nga bu ñu organiser woon islam ni mu ñu organiser le ci wàllu azaka azaka rek bu ko ñu yàlla may sédd la si woon normal jox ko daara yi daara yi mën a toog azaka kese mais nag malheureusement diine ji dañ koy jàng mais dégguñ ko kon nag ñi ngi wax euh, Safina FM sëñ mënir ak mbokk internet yi seen mbokk loon seen xarit Oustaz Taha Niang euh, di di di di laasa laasa benn message boo xam ne gis nga ni ñuy soloo ci weeru koor ci jigéen ñi ak ni dëkk bi di dalee bu dul weeru koor noonu la dëkk bi war a continuer dégg col mu yiw mi lislaam noonu la ko santaane euh, bañ a sol lu xaram bañ a sol lu gàtt bañ a wuññi sa awra Euh, sàmm sa bopp parce que dama daan wax jigéen ju baax ju ne war naa téye tànkam rafet xees jonge sàmm ndawu jànqam ku ko xool ku ne mu war la pànkam fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin émission bi religion et société te jigéen moo yor société kon fi nga ko tëjee am na solo kon mu nekkoon oustaz Taha Niang di ko am taxawaay ci wàllu daara macha allah te li muy wax ni mu koy waxee noonu la koy dundee Euh, macha allah ndax kon euh, ñu mel ni moom bu bëri woon rek problème bi dana réglé kon euh, kasarallaahu am saala comme ko Cheikh El Hadj Abdou daan ñaanale taalibe yu mel ni yow kon yàlla na yàlla bëril sa kem kon mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci topp gi ngeen doon ñu topp ci émission religion et société kon ñu leen di jox dig daje ci talaata bi di ñëw incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu